jëre ngeen jëf si euh, seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak euh, déglu bi ngeen a déglu Q ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi ñu fisal boppi xibaar njiit réew mi président Adama Barrow keroog dimanche de teew na foofu ñu xamee si Bundunkakunda li warool nag mu taal li fa teew mooy nag daal dafa demoon pour daal teg xeer bu njëkka gannaaw bi nga xamee ne parti bi ñu xamee si NPP ñoom nag daal ñoo nag nama tabax li nga xam ne daal moo di daal seen ab màkkaan mag koo xam ne foofu si diwaanu Euh, Bundunka Kunda nag lañ koy nak daal di tabax moom njiitu réew nag mu dem fa teg fa nag xeer gu njëkk dinañ ko yaatal si biir xibaar yi kër gi ñu xamee si Gambia Revenue Authority nga xam ne ñoom la nguur gi sas pour rek daal ñuy fay ko taxe wala l'impôt si biir li nga xam ne moo di réew mi keroog daal samedi ñoom amal amaloon nañ seen nag ab xew-xew boo xam ne at mu nekk dinañ koy amal ren di juróom-benneelu at mi mu di ab xew-xew boo xam ne dinañ nag daal delloo njukkal ñi nga xam ne daal ñoo di seen ay taxpayers maanaam ñi nga xam ne ñoo dee fay lempo wala li nga xam ne moo di daal taxe nag daal delloo leen li nga xam ne mu daal njukkal si rek ndaje moomu njiit réew mi teewoon na si ndaje moom dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ñi nga xam ne ñoo teewal askan foofu si pencal ndawar réew mi keroog lundi tàmbali nañ nag ab pencoo moo xam ne rek dafa aju si rek wàllu ab nag sarta wala ab luwaa joo xam ne daal bëri na coow lool mu di joo xam ne daal yenn si ay député ñooy sàkku daal pour rek daal ñu daal daal di ko neenal mu ni nag euh, luwaa wala sarta ji nga xam ne mooy tere loolu ñu xamee si female genital mutilation di rek daal yóbbu jigéen néegu jigéen euh, luwaa bi koy tere yenn si ay député daal dañ buggal luwaa bu nag ñu nak daal di ko neenal mbir mi nag tàmbali nañ ko pencoo keroog lundi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal talaata la juróomi fan yi si weeru mars atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukk ak ñeneent ñu dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaay xibaar Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi njiiti réew mi président Adama Barrow keroog dimanche teew na foofu ñu xamee si Bundunkakunda demoon fa nag pour daal teg xeer bu njëkk gannaaw bi nga xamee ne parti bu mu jiite di parti bi ñu xamee si National People's Party ñoo nag daal di namm tabax li nga xam ne moo di ab makkaan goo xam ne mooy nag nekk seen makkaan gu mag gi ñu nag daal tàmbale ko nag daal tabax foofu si rek daal Bundunkakunda moom njiiti réew dem na fa nag daal di teg li nga xam ne moo daal xeer bu nag daal njëkk bi si rek teewaayu ñi nga xam ne ñoo di farandoori parti bi ñu xamee si National People's Party mu di ab nag daal euh, màkkaan goo xam ne mu ngi foofu si diwaanu Bundunkakunda si suufi Kanifing Municipal Council parti la boo xam ne mun nañu wax daal bi lay nag daal juróom-ñetteelu yoon nag ñuy nag teg xeer bu njëkka ci ay makkaan yu wuute yoo xam ne daal tàmbali nañ ko nag daal di eh, tabax parti la boo xam ne nag daal si atum 2020 nag lañ ko nag daal di sos si nag njiitalu ki nga xam ne moo jiite parti bi di président bi di président Adama Barrow si bi nga xam ne ndaje bi mu ngee teg xeer bu njëkk moom jiite réew mi président Adama Barrow nag daal sàkku na si ñi nga xam ne ñoo bokk si parti bi ñu xamee si rek daal NPP ne daal eh, nañ nag daal di fexe ne daal amul kenn koo xam ne daal génn sa morom si biir li nga xam ne moo di daal parti bi ñëpp nag daal ñoo yem si li nga xam ne moo di biir li nga xam ne moo di parti bi muy sàkku tamit nga xam ne ñoo far si parti bi di daal nag daal euh, bennoo di xàcceendoo di dóorandoor su ko defee nag daal mun a daal di gën a daal dëgëral dëgëral taxawaay yu li nga xam ne moo di parti bi ñu xamee si rek daal National People's Party bu ñu sukkandiku si ay kàddu mu daal parti la boo xam ne daal dafa bugga mu nag doon ab parti boo xam ne buy nag taxaw tem lay doon boo xam ne sax bu fekkee ne daal moom nekkatu fi sax parti bi dina wéyandi dina daal di taxaw bu ñu sukkandekoo ne moo di ay kàddoom Sidi Eskay Ndiaye nga xam ne moom mooy euh, deputy speaker of the National Assembly nekk tamit deputy spokesperson si parti bi ñu xamee si NPP daal dina wane seen nag daal euh, màkkaan googu nga xam daal euh, teg nañ xeer bu njëkkee pour daal tàmbale ko tabax nag ab màkkaan la goo xam ne daal duñ ko nag yemale rek si rek daal yëngu-yëngu li nga xam ne moo di daal euh, parti bi ñu xamee si rek daal NPP daal seen yëngu-yëngu politique waaye nag dina am yeneen si nga xam ne moo di ay yëngu-yëngu xam ne euh, dinañ ko fag bugg di amal bu ñu sukkandikoo si rek li nga xam ne moo di ay kàddoom Siri Cissé Yoreno Baltanka bi ñu xamee si administrative secretary si parti bi di NPP moom nag daal dina wane li nga xam ne moo di parti bi ñu xamee si rek daal NPP nag daal ab parti la boo xam ne daal mu nge gina a nag daal di am nag ab taxawaay si biir li nga xam ne moo di réew mi mu ne lii yëpp nag daal euh, si rek njiitalu ki nga xam ne moo di njiit réew mi la di président Adama Barrow bu ñu sukkandekoo si ay kanam c'est Omar Jigo nga xam ne moom mooy contracto bi wala moom lañ sas pour daal mu tabax li nga xam ne moo di tabax boobu daal dina wax ne daal li nga xam ne moo di liggéey ji nag dina ko jël juróom-ñetti weer pour rek daal mu nag daal di ko jeexal daal dina xam ne ne ab nag daal euh, béréb la boo xam ne daal li nga xam ne moom lañ fay tabax daal dina doon ñaari nag daal taax si kaw nag lay doon dina am nag daal juróom benni li nga xam ne moo di offices ak yeneen ci li nga xam ne moo di ay màkkaan yoo xam ne am si xam ne moo di béréb boobu noonu si ndaje moomu tamit ki nga xamee si Mamadou li nga xam ne moom moo nekkoon campagne manager bu UDP jamono ji mu fekkee parti bi nga xamee si NPP yëkkati na fa daal kaddu daal di ne Euh, li nga xam ne rek moo di parti bi nag di NPP parti la boo xam ne daal euh, nag daal dafa ñëw nag pour rek daal taxaw li nga xam ne moo di askan te sax li moo askan bi daal fexe daal di dem bokk ci parti bi di NPP comme moom it li nga xam noonu la dem bokk si parti bi moom sax daal dina xam ne si ndaje mu mu ngi xamal njiitu réew mi nag daal li nga xam ne moo di ndaw ñi kontaan nañ si moom euh, gannaaw bi nga xam ne daal ab doxalinam tax na nag ndaw ji kontaan si moom bu ñu sukkandikoo si moom Mamadou Sabali seen ndaje moomu Séykou Konaté nga xam ne moom moo fa teewal kaalibu bundung bi yëkkati na fa kaddu ak yeneen si li xam ne moo di ay nit ñoo xam ne daal ay nag boromi nombal tànkal ci parti bi ñu xamee si NPP ñoom ñëpp nag daal xam ne moo di daal ndaje boo xam ne njiitu réew mi di président Adama Barrow nag moo fa teewoon nag teg xeer wu njëkk si rek daal ab màkkaan yoo xam ne parti bi NPP nag daal ñoo koy nag daal tabax si rek diwaanu li nga xam ne moo di Bundung Kakunda ñu wéyande si beneen xibaar kër gi ñu xamee si Gambia Revenue Authority di kër gi nga xam ne ñoom la nguur gi sas pour rek daal ñuy fay ko taxe wala l'impôt si biir ne moo di réew am nañ amal nañ seen nag daal ab xew-xew xam ne at mu nekk dinañ koy amal bii nag di juróom-benneeli yoon ñu di ko amal ab xew la boo xam ne nag dina dinañ delloo njukkal ñi nga xam ne ñoo di ay taxpayers maanaam ñi nga xam ne ñooy fay seen nag daal l'impôt si rek teewaay boo xam ne njiiti réew mi di président Adama Barrow nag daal dina ko euh, teewee ab nag daal xew-xew la boo xam ne daal at mu nekk nag dinañ koy faral nag di ko nag daal di amal bétana si li nga xam ne moo di daal ndaje moom ki nga xam ne moo di commissioner général wala jiite Gambia Revenue Authority Yankuba Dabo daal dina wane li nga xam ne moom lañ leen sasoon si atum 2023 pour rek daal ñu fayee ko li nga xam ne moo di taxe wala nag daal lempo nag daal euh, daal dina nag toll si li nga xam ne moo di daal 15 euh, euh, point 2 billion maanaam fukk ak juróomi billion ak ñaari téeméeri million si koppari dalasi nag lañ leen sosoon waaye nag wax ne daal daanaka loolu sax daal euh, weesu nañ ko liñ leen sosoon sax weesu nañ ko ba sax si njeextal njeextalu atum 2023 liñ feyeku euh, toll na si rek daal 15.7 euh, billion dalasi maanaam fukk ak juróomi billion ak juróom ñaari téeméeri million bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal ay nag daal kàddoom li nga xam ne moo di daal seen ndaje bi nga xam ne daal at mu nekk dinañ koy amal nag bi lay juróom ko amal li nag tax na daal ñi nga xam ne ñooy fay taxe wala lempo gina nag daal gën nag di nag daal sawar di nag daal fay seeni tax wala lempo gannaaw bi nga xamee ne ab bés la boo xam ne dinañ leen delloo li nga xam ne moo di ñoom ñi nga xam ne ñooy fay li nga xam ne moo di tax wala lempo njiit réew mi président Adama Barrow nag wax na ne li nga xam ne moo di nguuram gi nag ñoom daal dinañ tëral ay pexe yi nga xam ne daal mooy tax nag daal ñu fexe lu aju nag si wàllu tax wala lempo daal mu fe mu doon loo xam ne dinañ ko nag jaarale si li nga xam ne moo di daal yoon bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom moom njiitu réew mi nag mu nag daal di wax ne daal li moo sàkku si li nga xam ne moo di business community maanaam ñi xam ne ñooy yëngu si rek wàllu yaxantu mu ne jaajëfal na xam ne wala fay lemp bi nga xam ne ñu ngi koy fay waaye nag nañ gën a góorgóorlu seen fayam tax wala daal fayam li nga xam ne moo di daal euh, euh, lempo bu ñu si rek daal ay kàddoom ki nga xam ne moo di board chairperson Gambia Revenue Authority Lucy M Faye Jagne moom nag daal dina wane kër gi ñu xamee si Gambia Revenue Authority ab kër la goo xam ne bu ñu ràññee la si li nga xam ne moo di daal àddina si ay mbootaay yu bëri nag daal ràññee nañ kër gi ñu xamee si rek daal Gambia Revenue Authority si seen ab taxawaay euh, seen nag liggéey si seen euh, si wàllu fay comme taxe boo xam ne dañ koy jaarale si li nga xam ne moo di daal yoon si rek daal ndaje moomu tamit këru liggéeyukaay bu ñu xamee si QCell di këru liggéeyukaay bu mag boobu nag daal ñoom nag lañ nag daal di jox raaya bi ñu xamee si GSM tax of the Year maanaam li nga xam ne moo di GSM operator wala GSM company bi nga xam ne fayam tax si rek at mi nga xam ne moom lañ génn daal ñoom nag daal ñoo si rek daal jël raw gàddu wala daal ñoom ñoo jitu QTV ak Q radio nag ñoo di media house of the year maanaam bunti tasukaay xibaar yi nga xam ne si wàllum fayam tax wala fayam lempo ni ki daaw ñoo si nag daal gën a ràññeeku ñoom it nag daal jot nañ fa li nga xam ne moo di daal ab nag raaya si rek daal xew-xew boo xam ne Gambia Revenue Authority ñoo doon delloo njukkal ñi nga xam ne daal ñoom lañ xamee si taxpayers maanaam ñi nga xam ne ñooy eh, këri liggéeykaay yi fay eh, seen tax wala lempo si anam yi nga xam ne daal anam yu mucc ayib la si beneen li nga xam ne moo di xibaar ñi teewal askan foofu si pencal ndawal réew mi keroog londi tàmbali nañ ab penco moo xam ne lii ko nag sabab mooy nag daal eh, kenn si député yi wala ñenn si ay député ñooy sàkku pour rek daal ñu nag neenal li nga xam ne moo di loi ji nga xam ne mooy tere loolu ñu xamee si female genital mutilation mu daal daal di eh, yóbbu jigéen néegu jigéen loi bi koy tere nag daal dafa am nag ñuy sàkku ne daal dañ bugg a nag ñu neenal loi boobu nag daal bàyyi askan wi ku si ku si bugg a sa doom jigéen eh, nag daal li nga xam ne moo di néegu jigéen ñu nag daal bàyyi ko Euh, loolu nag daal lañ tàmbalee nag daal di ko pencoo si li nga xam ne moo di daal pencal ndaw réew mi keroog loolu di gannaaw bi nga xamee ne ki nga xam ne moo di National Assembly bi kan Kansala moom nag daal moo daal di teewal euh, nag daal euh, ne daal nañ ko nag daal di nañ nañ moom nag moo jiite sax daal Euh, pour rek daal ñu nag neenal li nga xam ne moo di daal euh, lu waa jooju nga xam ne mooy tere loolu ñu xamee si female genital mutilation ni ki dem si rek loo gi ay nag nit yu bëree bari teewoon nañ ci penc mi bokk na si nag li nga xam ne moo di ay kilifa diine ràññee ko si imam Abdoulaye nga xam ne moom bokk na si ñi nga xam ne ñooy farleel loolu ñu xamee si female genital mutilation maanaam ñi nga xam ne ànd nañ euh, pour rek daal yóbbu jigéen néegu jigéen moom bokk na si ñi nga xam ne ñoo si nag daal di ànda moom sax daal wax na ak taskatu xibaar yi xam le ne Euh, moom nag daal euh, li nga xam ne moom la euh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane moom loolu lay nag laa daal di topp gannaaw bi nga xam ne wax na ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag daal jamonoom dañ daan yóbbu jigéen néegu jigéen te nag ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di nag daal yonent bi nag musut koo terees li nga xam ne moo di jamonoom mu ne daal ana ñi nga xam ne ñoo koy tere tey ana ñoom ñooy ñan ñii nag wax ne daal dañoo tere loolu ñu xamee si femelle genital mutilation wala yóbbu jigéen néegu jigéen moom ki nga xam ne moo di daal imaam Abdoulaye Fati mu ne daal mbir mi xaraamut wala daal mbir mi euh, nag daal euh, dagan na bu ñu sukkandiku si ay kàddoom moom ki nga xam ne moo di imaam Abdoulaye Fati mu ne daal moom nag daal du déglu nag daal euh, docteur yi tey moom docteur bu mag bi lay déglu mu di docteur bi ñu xamee si Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu sukkandiku si rek daal kàddu yi moom ki ñu xamee si imaam Abdoulaye Fati président bu Female Lawyers Association jiite li nga xam ne moo di layookat yi nga xam ne ñooy layookat yu jigéen nekk fi si biir réew moom it nag daal yëkkati na kàddoom wax ak way taskati xibaar ne daal li moo sàkku daal ne daal naam bu fekkee ne lu ñu xamee si female genital mutilation mu di xarafal jigéen wala yóbbu jigéen si néegu jigéen bu fekkee ne sax daal mbiru aada wala mbiru li nga xam ne moo di diine la waaye nag nañ bàyyi xel ne daal tamit nag daal war nañoo seet euh, jafe-jafe yi nga xam dinañ ko dina dina koy indi si rek wérgu yaram ñi nga xam ne ñoom lañ koy def mu ne nag lu ñu war a seet la moom nag wax na li nag daal ñoom ñi nga xam ne ñooy ñooy nag ñoo ñoo nanguwut loolu ñu xam ne si female genital mutilation nag daal ñëwuñ pour xeex diine gannaaw bi nga xam ne lii nag du mbiri xeex li nga xam ne moo di diine gannaaw bi nga xam ne wax na ne daal li nga xam ne moo di diine islam daal diine jàmm la te diina la joo xam ne daal du nag santaane mukk nag daal mbirub li nga xam ne moo di daal lorange bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne eh, moo di daal ay eh, kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar compagnie wala këru liggéeykaay bi ñu xamee si One Stop Gam Group ab Gambian compagnie la doomi rewu Gambian moo moom li nga xam ne moo di compagnie bi yëngu si rek wàllub tabax ak wàllum li nga xam ne moom lañ xamee si plombine ñoom nag daal fesal nañ seen i nag daal eh, mbir yi nga xam ne daal si lañ dee daal daal di yëngu ñu ñu ngi ko fesal keroog li nga xam ne moo di daal ajuma ab compagnie la boo xam ne daal ab doomi réewu Gambian boo ko moom ab doomi boo xam ne daanaka mu ngi woon biti réew lu ëpp ñaar fukk ak juróom-benni at nag mu ngi woon biti waaye jamono ji ñibbi si waat na ubbi ab këru liggéeykaay fii si biir réew mi Ousmane Ndaw noonu la lay nag daal di wuyoo wax ne lu aju si wàllu tabax wàllub nag daal euh, njaayam building materials si lay nak daal di yëngu daal dina xam ne daal am na daal ay jumtuwaay nag daal yu méngoo ak li nga xam ne moo di jamono yoo xam ne daal bu fekkee ne daal li nga xam ne moo di pipe yi naweek yi nii am na jafe ñoom mun nañ seen taxaw indi si li nga xam ne moo di ab safara bu ñu sukkandiku si ay kàddoom Serigne Modou Ndiaye ministre of defence si jëwni ci ñi dénk mbirum nag daal soldaar yi teewoon na foofu nag daal di wax ne li nga xam ne moo di compagnie bi ñu xamee si one stop gam ab compagnie la boo xam ne daal seeni nag daal gis-gis dafa nag daal méngoo lool li nga xam ne moo di gis-gisu li nga xam ne moo di daal nguur gi te nag daal ab compagnie xam ne daal euh, dañ ñëw pour daal euh, dooleel li nga xam ne moo di daal nguur gi si wàllu njëm kanam li nga xam ne moo di réew mi mu delloo njukkal ki nga xam ne moo di borom compagnie bi di rek daal Mr Ndaw Mamadou O Thiam di chief of defence staff Gambia am force jiite soldaar moom nag daal dina wone nag ki nga xam ne moo di moom moom compagnie bi ministre Ndaw mii moom nag daal mosoon naa bokk si na li dafa nag daal dellu si waat si wi réewam pour nga xam ne daal ñooy nag daal dugal seen loxo si na jëm kanam li nga xam ne moo di réew mi mu ne nag ki nga xam ne moo di ministre si banqaas yi takkatar bi si Gambia Armed Forces euh, nit la woon koo xam ne daal am na lu bari loo xam ne jàngee na ko fa mel na li li mu jàngee nag si rek daal banqaas boobu daal la ñëw pour rek daal tari ko fexe nag daal doon koo xam ne daal kuy nag daal yëngu si rek daal bugg a réewam la bugg a euh, bokk si nga xam ne ñooy suqali li nga xam ne moo di daal euh, réew mi moom Momar O Thiam ne daal si tur ñi nga xam ne ñoo di banxaase takk ñi nga xam ne si Gambie en force si sant nañ gërëm nañ koo xam daal nekkoon na seen ab naataango si daal jëf nag am ne euh, def na ko nag daal jógee ko biti réew ñibbi si waat fii si biir réew mi ubbi fii li nga xam ne moo di daal ab këru li nga xam ne moo di daal euh, liggéeyu kaay bu ñu sukkandikoo si moom ki ñu xamee si Momar O Thiam di chief of defence staff jiite li nga xam ne moo di soldat yi nga xam ne ñoo nekk fii si biir réew mi doon delloo njukkal euh, ki nga xam ne moom lañ xamee si rek daal Mr Ndaw